internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su info net ak seen info international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal la tënku xibaar tey lundi di 27 juin ñu tàmbale ko xibaaru biir réew mi. Bébé ayda mi nga xamee ne nag euh, dañ ko sàccoon lënd bi ñu weesu fële ca Pikine euh, moom nag euh, gis nañ ko ci jàmm ki nga xam ne nag moom moo ko yóbbu woon di as ndaw soo xam ne ñu ne ab Gambien la bu am vingt-huit ans te dëkk foofale ca Pikine ñu ne moom nag ba ko enquêteurs yi dégloo daal daf leen ne li tax mu def mbir mi dafa buggoon am doom lool te amu ko moom sax nee na ëmb na ñaari yoon ëmb ba di yàqu mu ne loolu nag tax ba bi mu gisee xale bi moom Bébé ayda mu nekk moom kese ci la profito daal jël ko yóbbu ko moom nag nee na defu ko dara lu métti defu koy it dara lu ñaaw ba ko jëlee ba léegi sax bëggul tàqalikoo ak ki nga xam ne moom mooy xale bi fi mu nekk ni nag moom yoon teg na ko loxo ngir wéyal lii di lanket bi Ahmed Aïdara Déthié Fall ak Mame Diarra Fam mi nga xam ne ñu ngi leen euh, tegoon loxo le 17 juin bi ñu génn gannaaw bi opposition bi di amal ab manifestation boo xam ne dañ ko tere woon ñoom nag euh, bésub tey bi euh, lañ leen war a atte gannaaw bi nga xamee ne kon seen atte dañ ko dàqoon ñu leen di toppee nag mbirum participation à une manifestation non autorisée provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public ci jamono ji nga xam ne nag ñu ngi waajal feetu ba tabaski ñi nga xam ne ñoom ñooy réewum Mali euh, bàyyi nañu euh, xar yi nga xam ne kon dafay bàyyeekoo foofu foofale ca Mali daal ngir ñëw fii ci Sénégal euh, ubbi nañu frontière kon ngir xar yooyu mën a ñëw donte fi mu nekk nii nag kon Mali ak Sénégal dañoo tëj seeni ay frontière boobu ba léegi loolu nag toll na si juróomi junne ak juróomi téeméer ci ay xar ak i béy wante itam lu toll ci ñetti téeméer ci ci ay nag xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy mbir mu doy waar moo xam ne eh, moo xew fële ca Melilla ci frontière Espagne ak eh, Maroc lu toll nag wala lu ëpp eh, ñaar fukk ci ay doomu Afrique subsaharienne ñoom daal ñoo fa faatu gannaaw bi nga xamee ne dañ doon jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takku der yu Maroc yi bi nga xamee ne nag dañoo bëggoon jéggi barrage bi pour dugg foofale ca Espagne loolu nag ñii di Algérie di ko ñaawlu bu baax a baax a baax te sax ñoom ñu ngi laaj mbir moomu ñu ubbi ci ab lanket xibaaru bitim réew benn ponk lay doon muy fële ca Bavière ca Allemagne foofu nag euh, njiitu réew yu G7 muy maanaam juróom-ñaari réew yi gën am doole ci àdduna bi ñoom ñoo fay euh, daje ngir nag euh, waxtaanee ay euh, mbirum euh, ah, àdduna euh, lu si mel ni guerre ba am ca Ukraine ak it wàllum xiif bi nga xam ne eh, ñu ngi njortu ne eh, di ragal ne dina laal lu bëri ci àdduna ak itam lu jëm ci wàllum climat maanaam jaww ji Euh, ki nga xam ne nag moom mooy njiitu réew Macky Sall sax moom invité nañ ko ca en tant que président kon de l'Union africaine war na fa teew wante nag euh, ñu ngi xaarandi nag ab discours boo xam ne euh, kii di président bu Ukraine di Volodymyr Zelensky dina ko fa amal ganaaw bi nga xam ne nag moom dëkkam boobu ba léegi dafa am xeex bu muy xeex ak waa Russie yi nga xam ne ñoo ko songoon dañ koy jeexal xibaar sport Casa Sport démb jël na coupe du Sénégal gannaaw bi nga xamee ne eh, dafa dóor eh, kii di étoile bu Lusitana ñetti bal ci dara ñoom Casa Sport nag loolu day nekk seen ñaareelu ndam ndax bu yàggul dara sax eh, ñoom ñoo jëloon li nga xam ne moom mooy championnat bu Sénégal li ñu tey ci ay xibaar rafet seen taw li ñu tax daje ëllëg jaageen jëf